ñaari at yi passé dañoo gis ne dafa am benn njumte bu gars yi doon def ci sujet ci euh, euh, copie bi ngay def bi xale bi def preuve dañ ciy bind faculté moom dañ ciy bind optionnel mais ci calendrier bi nga xam ne moo tax xale bi war a def affaire bi dañ ciy bind euh, facultative loolu warul nekk parce que décret bi li mu li mu li mu wax mooy ne arabe bi ci élémentaire classique bi c'est optionnel beneen bi mooy ci franco arabe bi boobu moom 50% arabe 50% français boobu amul amul problème bu bari problème rek BFM bi euh, souvent dañuy am ay collecteurs yoo xam ne du éducation religieuse bi nga xam ne moom corriger. donc foofu aussi bëgg nañ ñu indi fa am nañ fa benn tontu vraiment dal na suñu aussi bi office bac office du bac ak euh, examen LAR bi ak ci examen baccalauréat général bi ak ak ak ak baccalauréat euh, franco arabe bi ben benn arabophone gese mo nek office du bac kon kooku xam nga ni kooku mën ta traiter ay milliers de candidatures ben nit mënu ko traiter mënu ko posé nañ ko ñom aussi nenañu inshallah incha allah dinañ ci indi ay ay solution même le ministre de l'enseignement euh mom ci ci boppam mo joxé cadre euh, gogou ne moom dinañ ci indi ay ay safara ben bi aussi moy ci niveau de responsabilité c'est-à-dire. Budé dee bac euh, LAR bi amna na moom arabe kese la ci bac franco arabe bi arabe la ak ak yeneen ak yeneen discipline euh, BFM amna franco arabe donc yaakaar naa ni yenn responsabilité yi responsabilité yi au niveau d'Exco warna am ay arabophone parce que ben arabophone aussi moo fa nekk inspecteur Cheikh yaté euh, donc limay bëgg wax moy dine rôle bi nga xamné mom la enseignement arabe am ci suñu système éducatif bu ñëwé ci évaluation bi ak responsabilité yi dañu gis ne am nañ fi ay agents yu compétents ay nekk ay arabophone mais kenn du leen responsabiliser loolu nag ci seen wax nee ñu dina jeex loolu ministre bi wax na ko même le PM aussi wax na ko moo tax ñu am yaakaar ne bu ñu bu ñu jógee fii dañu am école bu stable mais dañu am aussi école boo xam ne euh, ñi ciy liggéey yëpp dinañ gis seen bopp ci liggéey